sama tur euh, donc Fara euh, Fara euh, donc maa ngi vivre Allemagne maa ngi donc depuis 95 donc 1995 là mille neuf cent quatre actuellement ci domaine football mais aussi di qui ci domaine enseignement parce que ma joxe cours donc à à l'université. C'est nag dugg ci compétition à élimination directe donc entraîneur de war na xam ban deux élimination directe yi. Euh, ci loolu aussi ñu ngi koy bàyyi comme moom moo nekk ci ci bopp bi te xam aussi lan moo tax ñoom ñu teg ko foofu donc je crois bien que dina xam ban tànk lay demee donc pour mën a euh, donc mener l'équipe bi suñu objectif mais ce qui était important mooy ñu jóge ci premier tour dem ci dem ci deuxième tour bi. Sénégal Cap Vert euh, comme élimination directe la léegi amatul dara loo xamante ne mën na mën nañ ko xalaat mu ñuy dellu gannaaw mooy lan ci biir qualification bi ci ci biir match championnat premier tour yi euh, amoon na ay gàllankoor yoo xamante ni toujours dañ koy gis gàllankoor yi duñ ci revenir aat mooy par exemple affaire pandémie bi jour yi nga xam ne amuñu woon possibilité donc ñëw que entraîneur bi amul woon ossature complète mais euh, ci dernier match bi amoon nañ ko mais on a vu que li ñu xalaatoon que ñooñu bu ñu ñëwee loolu dina am donc gisuñu ko ça veut dire dafa nekk benn continuité ba nga xam ne li commencé moom la ñu terminé ba léegi boo gisee nga yore l'un des des meilleurs buteurs hein, au monde euh, nga yore aussi des jours yoo xam ne di ay attaquants yu xarañ yoo xam ne dañuy dugal but mais ci premier tour bi sur trois matchs on a marqué que su ma su ma juumul que que benn but ah su ma juumul voilà ci benn but boobu tamit xam nañ ne euh, euh, bal arrêté la muy penalty te aussi génnoon na temps bi nga xam ne sax moom ci football loolu la ñu war a def muy 90 minutes donc ci temps règle euh, ci temps euh, additionnel bi nañ ko dugal euh, li ñu war a def nag mooy contre Cap-Vert ñu jël initiative bi jël initiative bi li mooy li ñu gën a gis te population Sénégal di gën a gis mooy système tactique bi nga xam ne moom lañ ci moom lañ ñu offrir jusqu'à présent nekkul système tactique boo xam ne mën na jël coupe mais pas panique affaire bi mën nañu personnellement contre Malawi euh, développement horizontal donc parle de chaque fois des gauche d'une droite L'équipe qui gagner, gagner plus de donc équipe pour gagner, il y a des tactiques géographiques qui sont appliquées. De une façon il y a ce qu'on appelle euh, le système vertical le système système diagonal mais euh, parfois les défense hein. était un peu sporadique fu utiliser mais de façon constante aussi mais l'autre tamit un système parce que je crois bien que essayé 3 5 2 un système idéal pour faut aussi vertical il faut que nous une initiative parce que aussi initiative est ko pourquoi parce que dañ fa am avons ñu bëgg objectif boo xam fixé deuxièmement une position sur le plan africain et sur le plan mondial aussi may avons une may nous sommes di def jeu passif donc j'invite à un jeu actif jeu actif pour moi.. essayer dès les premières minutes d'avoir une mener équipe parce que vous avez double rek je crois bien que La disposition tactique bi équipe bay tegoon dina ko xaw a wëlbati wala dina ko xaw a jaaxal te si côté boobu a vous avez ba réfléchir donc nous avons dem sax ba dugal deuxième troisième but mais l'initiative.. il faut que jël ko bañ a jouer ci même niveau ak l'équipe..! équipe parce que avez wàccee sa bopp jouer ak niveau ak équipe bi nga xam ne yow yaa ko mën équipe boo xam ne bon du ma sax du ma sax mën parce que mën moom football gis nga affaire yi naka la demee mais li ngay def mooy da ngay fagaru poser ses jeux ñëw équipe bi nga xam ne moom ngay footballal aussi nga wan ko ne mag yow du ñu bokk ci même réew.